mbokki jullit yi mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu te di leen ziar rawatina mbokk yi féete fii ci Touba France yi leeral ay kàddu rek yu jëm ci màggalu Touba gi nga xam ne moom la waa Île de France gépp mànkoo ne dañ koy def muy loo xam ne ndigal la loo xam ne <clears throat> mu ngi jóge ci sëriñ Tuubaa sëriñ Sidi Muxtaar yàlla na fi yàlla yàlla na fi yàlla bàyyi te ay cëram muy ndigal loo xam ne yaakaar na ne jullit yëpp ci kontaan rawatina yoonu murit ndax moom ba ba tey luy boole doomu aadama rek la fi nekk luy boole tarixa yi luy boole sax ñi nga xam ne bokkuñu ñoom diine ci loolu rek lay dox rawatina nag yoon bi xamne mo yoonu murit tam nek fi doon Serigne Touba te ko seuk bu soññee nak ne dañu bëgg bolo lo xamne ay at yu bare ci ñu ci dox ile de france am ay daara yu baree bari kenn ku ne doon ber sa màggalu bop mu daan neex lool sax nak daan xumbu waaye yaakaar naa gi mooy mooy lépp solo ci lañuy gën a am kattan gën a ànd liggéeyal ku tedd ki ndax it kenn ko ne bu beroon sa côté sax di liggéeyal Serigne Touba moom du teel suuf liggéey nangu waaye nag bu ñu àndee doon benn ci la liggéey bi gën a yomb. ba tax na nag bi mu soññee màggal gi nit def ko mu di taxaw ci lool ndeysaan sonn ci lool suñ borom dogal ko ca bis bi nga xam ne moom lañ doon màggal Cheikh Ibrahima fii muy 13 juillet nga xam ne daanaka ci la ci la ci la ñëpp daal lii dafa war a am. ci ay kàddu yoo xam ne ay Baay Faal la ko fi yëkkati woon doon metti lu ñàkk ànd gi nga xam ne ci la ñu bare nag d'accord ne daal lii daal lu war a mën a am la kon ñu ngi sant yàlla di sant Cheikh Ibrahima Fall ba yoonu ci waaye moom lu ci dara yàqu ci waaye lu ciy defaru ci ci ci ci ci moom lay jaare euh, ba loolu amee nag ñu dégg ci ay kàddu yoo xam ne rafet luñ ko dara ndax tey jii bu ku taxaw ne euh, ku dem ca màggal googu amu màggal yaakaar naa ne yow yaa amul màggal yaa xamul ci li nga nekk ndax lu sëriñ Tuubaa digle ci lañ war a nekk ndigal moo ñu fa war a bàyyi waruñoo xool suñu xalaat yi bopp ñu bëgg-bëggi bopp bu newoon bàyyi leen màggal gi sax waruñoo màggal wantuma laa mu sant ñu ko sant ñu ñu booloo bañ dajale xéwal ko toll noonu jël ko ngir berne ci doomu aadama yi nga ne loolu yàq la sëriñ Tuubaa de dana woon màggal gii màggalam gii nañ ko ci defal ay berne ak ay xéwal te ñaari kër yu dend kenn ka di ko màggal keneen ko màggalu ko bu déwénee da nga da gis soppeeku ci ka doon màggal kon yaakaar naa ne màggalu Serigne Touba yi moom lu ñu def ci ay xéwal yàq mun ci am fii it ka yi mënuñu fee màggal mbooloo mi mënuñu fee daje xajuñu fa ndax prévoir guñ prévoire guñ loolu ci ci ka Serigne Touba du saal bu ñu am te baas moom kenn mënu koo def fii moom. c'est c'est c'est interdit loolu mënut a nekk kon ko Serigne Touba mu fay màggal amul sal bo xamne yépp dañ yëfi diine rek lañ fay def lolou amu fi sal bi nga soxla dem di fa musicien bi bu ko soxlaa dañ koy jox kii def leneen leen bu ko muy mariage muy lu doon dañ koy jox kon kenn mënu jël di yëfi diine rek lañ def kon congrès ñu jël. day saal bi bokk ci saal yi gën a yaatu euh, moo tax ñu jël ko yaakaar naa ne euh, lool lool lool lool rek la que Sëriñ Tuubaa yi nag la am ci leeral muy euh, surtout gi nekk taverne ndax foofu moom Sëriñ Saaliw du ko jëndoon ngi def ko kër Sëriñ Tuubaa waaye du ko waaye nag moom ka fa nekk defu ko kër Sëriñ Tuubaa kër boppam la ko def maanaam la ko fa neex rek moo fay am génn na fa njabootu Sëriñ Tuubaa goo xam ne da ngay tudd seen seen seen waajur rek tudd Sëriñ Tuubaa mu génne leen ci kër ga am ñoo xam ne da tudd seen waajur bu jigéen tudd Serigne Touba mu mu teg mu teg leen fa ay ay ay fitna ak ay natt yu metti sax mook soxnaam li may wax moom ragaluma ci te bu jaree leeral ma ma indi détail waaye loolu taxuñoo jug ba mu génnee ñooñu ñooñu ñuy wax ba ñu doon génnee waa daayira jaali batul muraaxib bi Serigne Xaadim si la jiite ñoo leen fat ñoon suñ ma déggee kon dañ xam li may wax bu baax a baax. kon koo xam ne day génne njabootu Serigne Touba ci kër Serigne Touba foofu datul kër Serigne Touba kenn waru koo jàppale ci loolu mu nekk ku ko ci jàppale rek yaa moom yam ay naafeq ngeen la fa yi daj ak yi daj xam nañ ko bu baax a baax a baax xam nañ ko bu baax a baax a baax a baax kon loolu moom daanaka jot jot jot a sori foofu daal moom ñoom ñoo ko jàppee ko Serigne Touba waaye Serigne Touba moom jàppee ko këram waaw. ndax kër koo xam da nga faa nekk ñu lay fayal ndox di la fayal courant di la jox dépasse waaye yow la fa la la neex nga ngay xool di ko fa def waaye la Serigne Touba la neex Serigne Touba am soo nekku ca loolu yaa ko jàppee ko Serigne Touba waaye ko Serigne Touba. Euh, koo xam ne it fu mbooloo mbooloo ne dañoo daje bëgg a nekk benn nga bañ bëgg a beru mooy sa intérêt bopp moo la ñor waaye du du du du du intérêt Serigne Touba ndax Serigne Touba moom mbooloo mbooloo mbooloo doon benn moo gën a lu mënoon am. kon yow bu dee da nga bëgg a beru boo ko bokk ci mbooloo mi mooy yow sa intérêt bopp moo la ñor waaye du intérêt Serigne Touba su dee nag da euh, lu mel ne Baye nek yi nekk euh, euh, Paris di fa sikkar di fa tudd turu yàlla wi chaque samedi ci lu ëpp juróomi at ñu koy def mosuñu koo jëlal bu doon ñett nit dafay daje danañ fa daje def ko ñooñu yéen a ngi ci li neex Cheikh Ibra ay Baye Fall saadix ngeen li ngeen nekk dong mooy dëkk man de saabu mu fa ñëwee naa fa dolleeku bu baax a baax a baax a baax saa bu ma fa ñëwee dolleeku ak taalibe dolleeku Pastef gën a bëgg Cheikh Ibra saa bu ma ñëwee ci yéen nag ndax loolu laay gis ci ni ngeen mel nag muy fulla ji ngeen am Cheikh la loolu la bëggoon ko ko mel ñun kenn moomu leen Serigne Touba ngeen yaakaar ak Cheikh Ibra loo xam ne Serigne Touba tegu leen ko Cheikh Ibra tegu leen ko bu leen nangu ku leen ko teg li ngeen nekk mooy dëgg na ngeen ci nekk. liggéey bo xamne nak yéen yéen a dégg ngeen ci Cheikh ibrak ak Serigne Touba gis ko ci kenn du len fa jiitu yéen fay njëkk yéen fay mujj kon li ngeen nek mom bu len ci mësa juggé magal gi nak képp ko xamne demo ci ndax contre amul len loo té nga dem fa képp ko yaakar Serigne Touba dal da nek Île de France te demo Touba demo ci palais de congrès moy li nga nek du dëgg ay caaxaan la nañ bàyyi talibé yi ñu nax Cheikh Ibra de taalibe yi sax li gënoon fenk fonk ci njabootu boppam musta digal ab taalibe loo xam ne du ko digal doomam musta tëral ab ta ab doomam foo xam ne du fa tëral ab taalibe kon nag ku leen bëgg a def leneen lu dul loolu bañ leen sëriñ Cheikh Ibra xidma la santaane muy liggéey ak jaamu yàlla te yéen a ngi ci yéen a ngi xëy di di di dang dangi loo xam ne loolu mën a dundale seen njaboot rek joxe addiya la yéen ngi dundal turu yàlla wi ci tuba bari moom ma mat ci seede lool ni ngeen gën a góorgóorlu bu leen kenn tax a découragé wala lenn rek wala ragal kenn mënu leen dara li ñu am ci Cheikh Ibra doom ngeen ci am wala ngeen ëpp ñu ci waaw loolu moom na leer waaw tas mbooloo nag moom xam nañ li li ci yàlla wax ku bëgg a tas mbooloo ak ñu ànd ak ak mbokk ñëpp xam nañ li ci yàlla wax yàlla rëbb na la. kon nag dangeen niñ gën a góorgóorlu gën a jàppoo gën a doon benn ngir ànd liggéeyal Serigne Touba ndax séntu asamaan mu jurul boo xante liggéeyal Serigne Touba moom boo ko bëggee def ba pare mënu ne du ma ànd ak kenn moom mooy yow euh, na xoolaat sa bopp na xoolaat sa bopp waaw kër Serigne Touba gi nekk tabarin daal du kër Serigne Touba kër Souleymane Diouf la man maa ko wax naa assumer sama ay responsabilité buñ ma laajee lu tax ma wax ko it am naa lu tax ma xam ne loolu du këram du kër Serigne Touba kër Souleymane Diouf la moo fay dogal lu ko neex ku fa neex moo koy dugg ku fa neexul du fa dugg waaw xale yi ñooy fay ndox ñooy fay courant waaye waañoo sax dañ leen koy privé ba duñ fa dugg sax mën a naan café sax buñ koy buñ ko buñ ko soxlaa dañ koy tàngal seeni kër pour indi ko pour pour pour pour fa Sëriñ Tuubaa daayira bu fi euh, loolu gis ngeen ne loolu lu jaadu la ndax lu jaadu la nañ bàyyi naxante yi nañ bàyyi jaayante yi ak waxante lu dëgg kenn ku na nekk ci la nga nekk boo gisee ni keneen lim nekk moom euh, neexul wala gënul la nga téye sa bopp rek bu bul bul bul ne li nga nekk mooy dëgg la ñaa nekk du dëgg waaw mbooloo mi daal ku leen bëgg a tas la nga nekk sax yow moom moo dul dëgg waaw loolu moom na leer Sëriñ Tuubaa dafa bëgg ñu ànd dafa bëgg ñu nekk benn waaw màggal gi nag ku ci jàpp Sëriñ Tuubaa nga ci nga ci jàppal ndax moo ñu ko sant ku ci jàpp it ndigalu Sëriñ Tuubaa nga weddi nga teggi fële teg teg teg say say bëgg-bëgg waaw ku ñëw dana neex ku ñëwuti dana neex waaw waaye nag yaakaar naa ne murid yi am nañ fayda am fayda boo xam ne kenn mënu leen influencé wala def loolu leen bëggul loolu xam naa ko ci ñoom rawatina mbokki Baay Faal yi maa ngi jégalu kàddu yu baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh